إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بالوجه المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بالوجه المصطفى إلى الكتاب والحديث عجبني خير باخ في خطابا كل ورقة بما لغد اختابا عجبني خير باخ في خطابا كل ورقة بما لغد اختابا لواجب ما خصد المبي لنا فارغت وولت والأمن ما خاب بيوت الذي ليس عني ولي بدني ولي يخلده من كبس خابا إلى سوى يريدا تنو بمامهم وبيوسف إلى عدر الباب قلوب من لم يحب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 bokki julli di bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare mu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ndokkeel ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi fi nekkal sëñ Touba borom yàggal ko fi lool te ko ba yéene yi mu am ci liggéeyal sëriñ Touba yàlla na ko defee ni mu ko bëggee te yàlla nañ ko ànd ak moom. noo ngi am cant bu baax ci jataay bi nu toogee ci ndigal li nga xam ni moom la sëriñ bi joxe. ci waajtaayu bisu xaside bii nga xam ni moom lañ jublu euh, ñu bokk toog fii ci daara ji toog ci su kon kanamu sunu jëwriñ Serigne Youssou Diop ngir waajal bis boobu ñuy woote nag ci turu jànkati xaside yëpp yi nga xam ni euh, ñoo aju ci daayira Mawaahibu Naafi ci turu sëñ Fallou Ndiaye ak mboolem jàngkat yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi yëpp mboolem région yëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii Touba itam ci taxsimu Seexul Xadim ak mboolem daayiru ahlu xasida ak Touba xasida social ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci jataay bi jataay bi itam ñu ngi koy amale ci jullikaayu it bi fii ci kanamu jumaa yi muy fi jullee it foofu la ñuy xëy bu sept wala huit heures gën gaa naaj ñu bokk fa daje dundal bis bi ni ko sëriñ bi diglee ba takkusaan noo toog nag ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoom lañu ñu di ci woote ci seen tur ñoom ñëpp di sàkku itam ñëpp maase teewandoo fo te kuy ñëw ngi indaale pas-pas bu dër ak yitte ju mat sëkk ngir sëriñ bi lim nu sàkkul ci boroomam nu mën cee jot wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yallaahu yaa alimu antallaahu wa yaa xabiiru maalahu asbaahu هب لي من لدنك ما نحب يا من له الأمور أنت الرب وعافنا والتف بنا ونجنا والتكفنا وكن لنا يا ربنا بحرمة الهادي عليه صليا وسلما في صحبه وكن ليا سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin addee borom Tuubaa الكتاب والحديث سلفا